Euh, Tchad c'est un plus que frère c'est vraiment un plus que frère Tchad euh, au-delà de ce que les gens voient c'est quelqu'un boo xamante ni euh, lu bare bare bare bare bari Tchad moo ko def ci man ci wàllu àdduna saayir pas saayir mais ci li ñu nekk nii par exemple Tchad tey jii nii euh, c'est quelqu'un boo xamante ni xaw ma nan laa ko mën a woowee et aussi autre chose mooy yaayu caat suma yaay la defoon magam ci koñ bi ci moom la daan ñëw di toog di waxtaan di jël conseil pour te dire que ni au même moment ñoom ñaar ñuy ñuy ñuy ñuy nekk ñuy nekk enceinte de nous deux elles avaient l'habitude de de de de de de de de s'asseoir de parler de discuter. di waxtaan ñoom ñaar di waxtaan ñoom ñaar. te boobu yéen ñaar juddoogu leen sax boobu juddooguñu boobu ñu gi ñu ëmb. Uh-huh. donc je peu dire que même la connexion a commencé depuis le ventre de nos mamans mu nekk loo xamante ni du du yëfu caaxaan bi ñu juddoo caat eh, le paradoxe mooy que ni te ba ni nii nii est ce que xam nga ni caat man ak moom musuñu bokk li ñu bëgg à part euh, taxaw euh, maanaam euh, liggéeyal yàlla wala jaamu yàlla. par joxe sa bopp lu ñuy wax le don de soi. mais sinon ay caractères complètement opposés la caat ba tey man ak moom bokkuñu fi ñuy fréquenté bokkuñu lu ñu bëgg genre oto yi ñuy dawal sax bokkuñu ko c'est-à-dire si si c'est c'est affaire bi doy waar quoi groupe de danse bi sama grand frère yi ak ñoom Mapaate ñoo doon danse man ak caat ñoo nekkoon ci staff bi ñoo newoon les managers affaire yooyu